bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaara bu baax alhamdulillah euh, bu ko defee kon incha allahu taala ñu ñëw ci liggéey bi nga xam ne sumboon nañ ko te fas yéene koo matal te sàkku ci ñëpp ñaan euh, ñu tàmbalee tey ci fi ñu yemoon rek wax jëmm yi laab ndax tàmbali woon nañ bunt boobu buntub leeral yan jëmm ñoo làpp ba tuddoon nañ ci ay mbir tàmbali woon a tudd ne lépp luy dund lu laab la waaye yay génn ci moom it limoon nañ ci ay lim wax ne laab na kon yay génn ci moom ñu waxoon ne laab na tuddoon baqate yaag ñant xit yaag yooyu yëpp di nga xam ba ci wàllum soow sax ci lañ mujjoon di leeral atte yim am lenn lu nekk waxoon nañ la ab atteem ci soow boo delluwaatee ca waxtaan wi jiitu wi rek incha allahu taala da nga ko fekk mu leer lool euh, tey nag ñu tàmbalee ci ne nenit ab nen maanaam nen comme niñ ko xamee bu fekkee ne dafa génne ci luy dund it loola laab na bu génne ci luy dund loola laab na mhm. euh, waaw waaw waaw doonte loola sax day dunde sobe am donte la nen nen ba day dunde sobe yi teewut nen ba laab wala sax dafa donte dafa am tooke goo xam ne mm, maanaam araamal nañ ko ko lekk lu mel ni jaan nenub jaan du tee ñu jàpp ne nen ba laab na waaye kenn du ko sañ lekk nag ngir ku ko lekk lor gam lay lor ak yàq gam yàq sa yaram moo tax kenn du ko sañ lekk araam na ku ko lekk waaye nag mm, bu taqee ci sa yére bu ca daq dara taqee ci sa yére loola dagan na nga jëliwaale ko ngir laab gam laaj la euh, laab gom laab hmm. mu seet ci nag ilal mazira lu dul nen ba nëpp kon nen bu nëpp danañ wax ab atem danañ ñëw wax ab atem incha allahu taala ci buñ ci tollee hmm. waaye liñ soxla woon fii mooy lépp luy dund neen ab neen ak lu man di doon donte day dunde euh, day dunde euh, sobe wala sax daa araamo lekk wala ñu sib ko teewut nen ba moom laab na waaye wax naa la léegi du tax nag ñu sañ koo lekk waaye laab na bu la taqee nga mën koo julliwaale ci lañ toll fii lépp loo xam ne dañ koo rendi maanaam dañ koo rendi ba noppi maanaam mu nen ab nen lu mel ne ginaar gu ñu rendi ba noppi mu nen ab nen nen bi jàpp ne laab na ndax daa bokk ci ajizal muzakka xaaji la ñu rendi ca la bokk waaw waaye kon nag kon li ma waxut na ko dégg ba bu ma ñëwee mu gën a leer maanaam loo xam ne Mm, dafa medd mën a fi naan am nen loolu danaa tudd lum doon ma ne am wàccu it am wàccu bu fekkee ne soppiku wut melaw ñax ba moom it ba tey laab na maanaam bu fe bu fekkee ne daal li nga lekkoon moo xam ceebu jën li ma waxoon lu mën di doon bu nga ko wàccoo da ngaa gis mu melaat noona comme nam meloon ba nga koy lekk boobaa dañuy jàpp ne laab na bu soppi ko danaa wax lum mu doon am ngàll it noonu rek la démé comme nima wax ci wàccu rek momit bu soppi ko wax lum doon inshallah allah hmm. la lañu don doon wax ci nani nak motax borom siraj salik di wax nan kuy baxal ay nen mudaf eh, danañ santane mu def ca ndox mu bari manam mu def ndox mu bari bari bari ngir bu ca ben nan yaqo baña soppi wala ndox ma kiy baxal ay nen nag benn benn nen yàqu ca nen ya ndox ma dal di soppi ko ca ndox moomu noonu kooku it buñ yeggee ci di wax sobe yi danañ waxaale loolu lum doon incha allah buñ ko fàttewut waaw euh, bu ko defee it bokk na ci li laab mooy li ñuy wax daatu aljamaadaatu daat nag ci feq buñ ko waxee mooy lépp loo xam ne amut agro bàyyi ko wut ci lu am agro te du màndal loola laab na hmm. lépp loo xam ne amut ak ruu bàyyi ko wut ci lu am ak ruu waaw te it buñ ko seeyaloon ba mu doon ndox du màndal loola laab na hmm. Hmm. waaye euh, lépp loo xam ne maanaam day day day day day day day day màndal loola dañuy wax lu mu doon loola dañuy wax lu mu doon Euh, loolu danañ wax lu mu doon bokk na ci yi nga xam ne laab na mooy deret deret dafa am ay xaaj waaye deret ji nga xam ne bokkut ak deret ji nga xam ne da ngay rendi rek mu naan pëf deret jooju dañ wax lu mu doon waaye deret ji nga xam ne danga koy fekk ci biir maanaam booy fees nga fekk ko ci biir yaxi la ngay fees wala yu mel noonu yooya laab na waaw kon dara jóg koo xam ne génne ci doole rek maanaam ne fépp lu mel ni kooku gaañu fenn walla xar mi nga xaañ ko wala ginaar bi nga xaañ ko dara dagg ci moom dara jooju bokkut ak jooju dara ji nga xam ne yaa ngi koy fekk ci biir xaywaan bi maanaam booy fees dara jooji seeb ji nekk ci biir diggante yax yaa ngi ko nuru dara jooja dara julaab la. Mhm. dara ji ci des danañ di ko wax lum mu doon waaw. Mhm. nekki noonu it luñ rendi lépp loo xam ne e, dañ koo rendi maanaam daganal nañ ñu lekk ko ba noppi ñu rendi ko loola xaaj ya ja cay génne ñuy wax aji sa uma zukkiya e, loola hmm, dañuy jàpp ne laab na hmm, moo xam ci la wala ab yax wala e, wala wala ab yax wala béjjën wala njaaxoo li ñuy wax we wala ab der yooyu yëpp doonte loola dañ koo sib sax dafa ànd ko sib lu tee ginnaaw rendi nañ ko yooyu ñu wax yëpp yu laab la hmm. Hmm. ni ki ndegmente yeeg yooyu loolu loo xam ne rendi nañ ko daganal nañ ku jullee ci seeni cër maanaam ku jullee ci seeni der laa bëgg a wax ku jullee ci seeni der kenn du ko sib darañ daganal it koo ko jaay waaw nga xam ne nag daa araama lekk loola dana ñëw ci wax ab atam lu mu ab deram lu mu doon fas ak mbaam àll ak mbaam mi ñu xam ak bax la yooyu seeni der euh, dañuy wax ni laab na ma dagan na mënees na cee jullee mënees na cee def it aw ñam hmm. loolu mutaaxiriina yi ñu mujj ci mazhab bi yu bari wax nañ wax jooju ndax dañuy wax ne al imaamu malik radiyallahu taala anhu duñ ko laajee ci der yooyu daf caa taxawlu tontuwu ca lu leer daal ne laab na wala sobe na lan moo tax mooy sàmmoonteeg jëfe yi nu saxaaba yi ndax dañuy wax ne saxaaba yi ridwanullahi alayhim dañ ko daan maanaam dañ daan jëfandikoo der yooyu noonu dañ ko daan jëfandikoo te xam nga ne masab Maalik li doonoon cosaanam ci atte yu mel noonu mooy ne loolu sobe la mooy loolu sobe la ndax loolu dañoo araamal ku ko lekk waaye mm, li ëpp ci mutaaxiriin yi wala lenn ci ñoom daganal nañ ne maanaam wax nañ ne loolu lu laab la mm, wax naa ne la imaam Malik bañ ko laajee da caa taxawlu woon. Euh, bu ko defee ñu delluwaat léegi dëppaat bi ñu waxee ne jamaadaat laab na jamaadaat nag nee la mooy lépp loo xam ne am ruux. bàyyi wul ci lu am ru te du màndal loola la na euh, bu ko defee nag lu mel ni lem ak soow loola duñ ko boole ci maanaam jamaadaat euh, ndax euh, maanaam soow moom ci bopp amul ru waaye daa bàyyi ko ci lu am ru waaye soow waxoon nañ ab àtte moom it ci ginnaaw yaakaar naa boo ca delloo da nga ko fekk mu leer waaw euh, nekk noonu lemit dañuy jàpp ne moom it lu laab la euh, niki noonu it lépp loo xam ne day dunde ci géej waaw lépp loo xam ne day dunde ci géej moom it laab na bu méddee it taxu ko téewu laab géej am meddam laab na hmm. ak lépp loo xam ne amul dara juy sottiku dara joo xam ne boo ko jëmee muy sottiku lépp lu mel noonu it loolu laab na bu meddee it teewoo koo laab hmm. nekki noonu it dunq yu ndaw ndawaan yi dunq yu ndaw ndawaan yi euh, moo xam ci nit la moo xam ci euh, karaw euh, day karaw gàtt juru kër ay yu ko nuru ak euh, karaw yooyu daal yëpp yoo xam ne mm, karaw yu ndaw ndawaan yi nga xam ne boo koy dindi du metti yooyu laab na loolu dañuy wax ne donte loolu daal médd sax boo ko soxlaa mën nga ko caa jël waaw loo xam ne boo koy dindi du metti waaye lépp loo xam ne boo koy dindi day metti nag bu doon dund boo koy dindi day metti mu di ko yëg loolu dañuy wax ab atam luumu incha allah mm-hmm. sàngara yi dañuy wax ne bu fekkee ne dañ koo soppi muy bineegar nga xam ne dañoo dindi la ca doon màndal léegi def ko bineegar loola it ba tey laab na nee ñu wala ñu def ko ba mu def aw doj te doj woowa kat ku ko defaatoon ndox du màndal maanaam la doon màndal dindi nañ ko ca sàngara sax mu doon bineegar wala mu doon aw doj nee ñu loolu it laab na waaw am mbay it dañuy wax ne bu fekkee na dañ koy suuxate sobe lu mel ni dañoo jël loo xam ne sobe la dëgg-dëgg di ko ko roosee di ko ko suuxate loola teewu koo làpp doonte dafa doon loo xam ne dañuy lekk reen ya wala ñuy lekk xob ya lu mel ni salaat xob ya la ñuy lekk la ca kaw lu mel ni euh, nawe ak yu ko nuuru wala ñàmbeeg yu ko nuuru loola lañuy ñuy lekk ci suuf la nekk waaye doonte dañ koy roosee sobe ba màgg yit loola du tee laab na mënees na ko lekk hmm. te it comme taq it lu laab rek ñoo la taq hmm. kon mm, yaakaar naa jëm yu laab yi mën nañ cee tënk loolu maanaam des na ay yoo xam ne waras na ko gën a mën a leeral waaye bu leeru it ku ko diglu te leerut bu ñu ca yónnee ab laaj incha allahu taala buñ ci amee luñ ca xam danañ ko tontu incha allah buñ ko xamul it danañ ko gëstu mbaa ñu jëlee ko ci ku ko xam mu tontu ko ñu dugal ko mbokk yëpp gis ko incha allah ñaan suñu borom defal ñu tawféex ak sutura kon bu ñu dikkaatee. tàmbalee rek ci jëmm yi nga xam ne nag ñooy safaanuk jëmm yu laab yi mooy jëmm yu sawe yi allah